am euh, kàddu jaal bu mu yëkkati si soxna jaaga bi nga xam ni ñu gën ko xam si euh, yaayu waalis balago Seck euh, am na lu si cheikh bi waxoon mu ni am na lu mu dund moom ndax dem na fa am na fu ko jaaga wan ni foofu lay toog di def ay dog ay salaatu ala nabi ah kon nag cheikh bi si yëpp ngi ñu ngi lay bàyyi xel internet yi ñu ngi lay bàyyi xel ñun ñi ci saal bi ñu ngi lay bàyyi xel ndax defe naa ni ku dëddu tamit baax na ñu koy nettalil lu baax di ko seddeel lu baax rawatina nag ki nga xam ne moom mooy nag sang-sang yàlla salaatu wasalaam lan nga dund ak moom ba tey jii nga war ko mën a wax nit ñi dégg gannaaw baatu inna lillahi wa inna di sant yàlla di julli ci sang-sang yi seydina Muhammad alayhi salaatu salaam di jaale sama rak Wally Seck sama rak ndax bi ma koy xam mi ngi am huit ans dama demoon këram seeti sunu papa coon bi nu dëkkee liberté 1 muy ku tedd ku baax ku bëgg def lu rafet ku bëgg def lu baax ku fonk liggéey ku fonk waajur sunu borom yëkkati nattu teg ko gisaguma ko waale je suis convaincu certain persuadé à un milliard pour cent du def lu dul jël lépp delloo borom bi du def lu dul wax benn kàddu alhamdulillahi rabbil alamin ndax xam naa ci moom gëm yàlla waale ay waajuram def nañ ci moom nangu ndogalu sunu borom waajuram mama jaaga dama dund ak moom li nga xamee ni dafa kéemaane te loolu dund naa ko ak moom six ans waali yëgu ko man waxu ma ko mama jaaga wax ko ko musu ko ko wax bis leen ma bis leen ma sa toog mu ne ma waay yow mama de nee na da nga fa ñëwoon yaa six ans léegi li lii uta waxoo ma ko man ko déet man moom la woon dama ñëw kër ga seet si ko oustaz xaadim mbay bi jàngal sama doomi alxuraan mooy jàngal ay doomam alxuraan oustaz xaadim mbay ne ma ah man de bu ma sañoon nga seet si mama jaaga ndax ku fonk alxuraan la ku tedd la ku baax la ma ne ko sama yaay la bi ma demee seeti ko def nan plus de deux heures de temps bis boobu laa jàng ci moom lu ma musul xam ci moom lu yéeme mooy cofelam dëgg dëgg dëgg dëgg cofel bu mu am ci rasulillah alayhi salaatu wasalaam te man mii maa ko séede te maa teg sama loxo ci alxuraanu karim billahi wallahi wataalaahi mama jaag bis boobu dee waxtaan ci rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ba rangoo ñam tuuru dal ci dënnam munuma jugal ñëw ma am lu ma la wan ñuy dox ci biir kër gi mu dugal ma ci benn néeg bi nga xamee ne amul meuble amul lal amul dara mu ne ma fii lay toog bis bu nekk di def salaatu ala nabi di dund muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam moo tax mama jaag moo tax moo tax mama jaaga Ahmed li nga wax nii ma voué ko un respect sans précédent ma fonk ko bis boobu nag am lu xew ca néeg ba ba mu waxee loolu ma aalu am lu ma def ma ne ko nag lii man yow sunu boroom ñu tënk ko moo tax bi ñu dawee dem six sama rakk ju tedd ji waal ñu ne mooy maman de nee na ma léeg léeg lii man ko waruloo ko wax sax ndax lenn ma miirloo lenn ma dofloo lenn ma jaxase maa ma ne ko dafa jeex takk dafa jeex takk dafa sëy ci bëgg rasulillahi alayhi salaatu wassalaam dinaa ko seede àdduna bi yépp sama xel dafa dal ci moom ci lenn kese kundum kot ndax mën naa waat bàkki livre le sauveur mama jàgg bëggul woon fonkul woon julul woon yaakaarul woon ku dul muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam yal na ko borom bi yërëm yal na ko teeru yal na ko sang-sang wan borom këram ak doomam muumi ñoom ñëpp ñu jataay ak rasulillahi alayhi salaatu wassalaam ak suñuy waajur ak sunuy maam ak sunuy rak yal na yàlla jël jataay bi rus ci muhammad rasul alayhi salaatu wassalaam yërëm humanité bi jéggal humanité bi ci daraje laa ilaha illa allah wa maolana muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam maa ngi jaale adduna bi sénégal particulièrement umma islamique bi maa ngi jaale mbokk yépp waale maa ngi jaale bépp jullit ndax l'islaam yéen a ko wax comportement la attitude la benn jullit bu nekkee ci fitna jullit yëpp nekk nañ ci fitna benn jiit jullit bu amee tiis ñëpp nekk nañ tiis kon ñu ngi wax mama jaaga rasul dénk nañ la bàyyi nañ la ak sa soppe bi seydina muhammad rasulillahi alayhi salaatu allahumma salli ala seydina muhammadin wasallim